mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey suñu juróomeelu bunt ci sunu téere bu mujj bi nga xam ni mooy kitaabul jaami ci bulughul maram bu alxaafis ibnu hajar rahimahullah muy li ñu tudde baabu tarhib min masaawi al axlaaq buntu tiita laate ca mooy moytu laate ca la nga xam ne nii moom mooy jukko yu ñaaw ya in alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
الباب الرابع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أنس نحوه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم أخرجه مسلم
kon mbokk yi lii mooy ñeenteelu bunt bi ci li ñuy tuddee kitaabu jaamic muy jàngale tiital goo xam ne suñu boroom dana ca tiital ay jaamam jaare la ko ci làmmiñu yonentam sallallahu alayhi wa sallam ngiree ñu moytu la nga xam ne mooy jukko yu ñaaw yi mbokk suñu yonent alayhi salaam daana wax ne ki gënal nit ñi ci jaami yàlla yi mooy ña nga xam ne ñoo ci gën a rafet jukko boo daana wax it ne bokk na ñi may gën a jege yowmal qiyaama mooy borom jukko yu rafet yi bokk na ñu may gën a sori mooy borom jukko yu ñaaw yi loole mu ubbee ci benn xadis boo xam ne abi hurayra moo koy nettali radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam iyaakum wal xasad maa ngi leen di moytuloo li nga xam ne mooy iñaan fa inna alxasada yaakulu alxasanaat lii nga xam ne mooy iñaan day lekk jëf yu baax ya nga defoon kama taakulu naarul xatab comme safara ni muy lekk mat axrajahu abu daawud wa ibn maaja min xadisi anas nahwa kon mbokk dafa am jëf yoo xam ne ci xol lay nekk bokk na ci loolu mooy li ñuy tuddi iñaan iñaan boobu bokk na la ca gën a suufe mooy yàlla xéewal ab jaamam yow loolee naqari la loolee naqari la ca loolu suñu borom mu ne am yaxsuduuna annaas ala ma aataahum allahu min fadli ndax dañuy iñaani nit ñi ca la leen yàlla jox ci ay ngëneelam looloo tax ba nga la way julit waa ji sab noon la sa doomi bàyyi la sa wujj la sa collègue de service la xéewal ga ko yàlla subhanahu wa taala defal da ngay jàpp ne lii du kattanam yàlla moo ko def ngir nattoo ko ko bala ngaa nekk di mébét yàlla dindi xéewal googee la nga war a jëkk bàyyi xel mooy yàlla mi ko jox lii mën na am mu jox ma lu ko gën suñu borom mi ngi nettali waa ja dëkkoon ak saay-saay ba ñu bokk ay tool jullit bi toolam dara amu ca saay-saay ba toolam dara manqué wu ca muy puukari wu ci kaw jullit bi mu ne ko mais su neexoon yàlla day mu jox ma lu gën lim la jox mu ngi noonu su neexoon yàlla mu jox ma li gën lim la jox yàq sa jardin bi almuhim kon jullit loolu la mooy xasad boobu mooy rek nga bañ li yàlla xéewal ab jullit mu am nag loo xam ne nii mooy la ca gën a grave mooy nag nga def ay pexe ci say wax wala ci say jëf pour xéewal googu deñ loolu moom mooy musiba bi nga xam ne suñu boroom moom lay wax wa min sharri xaasidin ida xasad yàlla yan nag ma musal ci ayu aji iñaan jamono ba muy iñaan ca jamono ba mu koy jéem a jëfe ndax ki iñaani nit ki mu yem ci xolam boppam lay lor kooku boppam rek lay lor moo dul mën a nelaw guddi mooy am lu ko naqari rawatina bu xéewalee yokku ca kam bañ moo am xéewal amaa nag bu jógee ji def ay pexe nag ci ay waxam boole kii ah rambaaje kii jëfa kii ngir xéewal googu deñ loolu nag dafay nekk ci musiba yi gën a garaaw ci musiba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ni nga xamee ne nii safara bu duggee ci mat noonu la koy taale jëf yu baax yi nit ki am iñaan ga muy iñaane jaami yàlla yi noonu lay taale ay xasanaatam loolu it muy wane ne la suñu borom wax ne inna alxasanaat yuzhim na sayiat jëf yu baax yi dañuy effacer jëf yu bon yi waaye am na jëf yu bonit yuy effacer jëf yu baax yi te bokk na ci loolu nga xam ne nii moom mooy xasad boobu nga xam ne jullit dafa war a ñaan yàlla musal ko mu koy def waaye ñaan it yàlla musal ko ci ñu ko koy def ay di ko pexeel pour génne la nga xam ne nii mooy ay xéewalam donte ne ni arab lii di ñeetaate da koy tudde xasad islaam bañul kuy ñeetaate islaam lim bañ mooy xasad ca mooy nga bañ xéewal gi yàlla xéewal nit la ca gën a nekk musiba nag nga fexe pour yàlla pour xéewal googu denc ci moom amma ñeetaate yonente bi alayhi salaam daf ñoo caa orienté woon mu ne laa xasada illa fi snatayn kenn du jullit day du ñee lu dul ñaar ñi kese waa ji nga xam ne yàlla da koo dénk xam-xam xam-xam ba mu koy jëfe di ko jàngale nga naan cey aka neexoon ma xam li diw xam bay taxawee li muy taxawee yonent bi alei salaam nee ne yéen ñaar yéen a yem pay ca yàlla keneen ki mooy yàlla da koo wërsëgal alal alal joojee fu mu gis bunt bu ngërëmal yàlla nekk mu dugal ko fa nga naan cey aka neexoon ma am li diw am bay mën a taxawee li muy taxawee kon ñeewoo borom alal ji ci këram gu rafet gaag oto yu taaru yaag jongoma yaag tool ya déedéet yaa ngi ko ñee ci jëf ju baax di muy def nga bëggoon a mel noonu jullit ñaar ñi rek lay ñee am maa keneen ku dul kii jullit du ko ñee te lépp lu ajul ci jaamu yàlla ci mbiru àdduna ñun ñëpp d'accord nañ ne yéeféer yi ci ëppale kon loolu jarul ñeetaate kon xadis boobee da ngay gis ne loolu lay jàngale suñ jëlee suñu xadisu ñaareel wa anhu abi hurayra moo koy nettali ba tey qaal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالصراء جمبار دي نكول شي غاوة دانيل أي مبر نكول شي غاوة دانيل waaye mbër dëgg mooy ki nga xam waa innama shadid kay mbër dëgg kay jàmbaar dëgg kay borom kàttan dëgg allazi yamliku nafsahu inda alghadab mooy ki nga xam ni su meree dana mën a téye la nga xam ne mooy boppam bokk li it ab xadis la boo xam ne rasul sallallahu alayhi wasallam dañu ci doon orienté ci doomu aadama bi te jéem a entraîné boppam ba mën a not boppam suñu delluwaatoon ci ñuy jàngale arts martiaux yi ay karaté ki ay kung fu yu demee noonu bokk na li ñuy wax dañ naan soo mënee fexe ba duma sa noon yow dañ naan tu es fort am nga kattan ndax mën nga duma sa noon mais soo mënee ba am maîtrise téye sa bopp ñu ne yow tu es puissant bokk na ñoom li ñuy wax combat buñ koy def ki gën a dal moo ëpp chance ngir gagné ci combat bi bal am na lu gaa yi nettali ñaari grand maître yu mag yu nekkoon ci Japon mu amoon benn fête gaa yi dajale leen pour ñu def démonstration ñoom ñëpp ay mag lañu biñ ñëwee ci ci biir stade bi ñu ñëw arbitre bi sifflé ku nekk taxaw fixé di xool sa morom di xool sa morom di xool sa morom ba 30 minutes yu ñu leen joxoon jeex kenn bougé wul public bi yépp jóg tàccu leen lu tax mooy ñoom dañoo géeju ci la nga xam ne mooy arts martiaux donc ñoom lañ gisee mooy yow sa noon waroo jëkk a jóg di jëm ci moom amaa ne ki jëkk a jóg jëm di tooñ ku mel noonu da ngay gis ne dafay kii lu bëri dafa ah waaw waaw loolu mi ngi noonu kon mbokk ñu war a jàng nat suñu bakkan ca mooy ñépp ñooy mer daan jàng benn xadis ci kanam benn waay ñëw ci yonente bi alei salaam ni ko di ko laaj mu ne ko bul mer waaye mer yàlla ko binde doomu aadama mbir bi nag mooy dafa am ñoo xam ni lu ñu mer mer du tee ñu ànd ak seen sago am na nag ñoo xam ne bu ñu meree dañuy doon ñoo xam ne dañuy teqalikoo ak seen sago complètement loolu ñu fekkee dara suñ doon def ci timis bokk na lu ñu doon wax borom xam-xam yu bari dañ ni ñooñu yegg ci mer googu bu ñu fasee jabaram sax kenn du ko ko toppi lañ koy toppee daal mooy jinaaye bu mu def nit mooy dóor na nit yàq na alalam loolu lañ ko koy toppee mais bu dee li muy wax kese loolu kenn du ko ko toppee mi ngi noonu ca mooy wàllu googee nga xam ne dafa aju ci kàttan googee donte ne ne mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci lu ko yàlla mayoon mu am kattanu mën a maîtriser boppam daan ko jàngal saxaaba yi wallahi daana taxaw di séddale benn waay jóg ne xam ngeen ne séddale bi kenn siitu ci yàlla saxaaba yi bocc seen jaasi mën a déet bàyyi leen daana dox nga gis benn kaw kaw ñëw poño ko ba baatu mbubb mi mi xaw a xotti baat bi jox ma sama wàll day geestu rek ree ko sallallahu alayhi wa sallam ca bu dee kattanu doole la ko ca yàlla mayoon mayu ko ci kenn am na ci makka kuñ daan waxu rukaana ponkal woon moo xam ni doole jëkk yàlla joxoon jéggi na dayoo nee na daana daana taxaw ci benn der ay ponkal ñëw pour xëcc ci der bi génn ko rek duñ ko man bis mu ñëw ci yonent bi alei salaam na ko waaye nga ne yàlla lu yónni mu naa mu ne ko kaa ñuy bëri boo ma daanee ma xam ne yàlla lu yónni yonent bi la ko bismillah ñu liiwloo yonent bi yenu ba ca kaw dir ci suuf dégg nga loolee ngeen gis ah loolu ko yàlla subhanahu wa taala may mooy amul benn góor bu mën a taxaw ci kanamam waaye suñu yaay Aysa nee na musul yëkkati loxoom jëme ci kenn xanaa lu dul muy jihaad fi sabilillah sallallahu alayhi wa sallam bu dee bu dee xadisu ñetteel bi mooy doonte ne it comme liñ doon wax rek ci ne mer tamit ñàkk mer du ne fépp la baax gis nañu ki ah ki kii bi non non non batterie bi dara la moom waaw kii da ku mel ni imam Shafii daana wax ne it képp ku dul mer yow mbaam nga te it jullit bu gisee lu jara mer day mer ñu ngi noonu yonent bi alei salatu wasalaam ku mësaan xotti war may diine day mer ba ñëpp xam ko ci moom keroog bi Usaama ñëwee ne ko dafa am benn jigéen bu sàcc fii waaye nag moom mi ngi bokk ci ñi gën a kawe ci deret ci wàllu Quraysh ndax du joxe diya au lieu ñu dagg loxoom Usaama mu ne keroog mer bi yonent bi yàlla mer musuma gis mer mu mel noonu mu ne ko yaay ñaan intervention ci loi bu yàlla tëral kon jullit boo waree mer da ngay mer am na nag ay ñoo xam ne jàpp nañu seenu mbaax mooy diw du mer kër gi xale yu góor yi jigéen ñi lu leen neex def ku neex dugg ku neex génn ku neex sol ku neex nangam doo wax dara mbokk imam chef yi nee na kooku mbaam la mi ngi noonu man lam yaxlab fa huwa himaar yaa ngi dëkk amma bu dee xadisu ñetteel bi wala ñeenteel bi ibnu omar moo koy nettali qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam az-zulmu zulumatun yawma alqiyama ay waay xam li ne lë tooñ day ay lëndëm lay jur yawma alqiyama wa an jabir radiyallahu anhu qaal jël nañ ci jaabir ba tey qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ittaqu zulma ay waay moytu leen tooñ fa inna zulma zulumatun yawma alqiyama toon day ay lëndëm lay jur yawma alqiyama wattaqu shuha moytu leen ak xir ci nay fa innahu ahlaka man kaana qablakum moom kat dana moo alagoon ña nga xam ne ñoo fi jiitu woon mbokk ñaari xadis yi daalika benn la ca mooy day teg day digle day tere ñaari yu bon benn bi mooy tooñ ba ko tooñ mooy jalgati nit ki ci ab deram yàq deram jalgati nit ki ci jëmmam tuur nga deretam wala dóor nga ko jalgati nit ki ci moomeelam nga doon alalam la wala njabootam la yi yépp ay tooñ la rasul sallallahu alayhi wasallam mu ne nag ay lëndëm lay jural nit ki yowmal qiyaama ca bokk na suñuy borom duy atte jaami ëllëg yowmal qiyaam da leen di xaaj nit ñu baax ñi mu may leen leer goo xam ne day mat sëkk jóge ci seen kanam ak seen ndeyjoor mu ngi noonu amma nafiqi ak yéefir yi mu bàyyi leen ci lëndëm gu tor bokk na nag luy boole nit ki ci lëndëm yowmal qiyaama mooy mu nekkoon ab tooñkat loolu tax nafiqi yi daañ woon nit ñu baax ñu naan leen xaar leen ñu ñu niitu ci seenu leer ñu ne leen déet dellu leen àdduna ndax yéen a tooñul seen bopp loolu it mbokk ñuy wane ne kii tooñ tooñul ka muy tooñ boppam rek lay tooñ looy man ci moytu tooñ nga la way naka moytu musiba la yoo xam ne ba ca gën a bon nag mooy tooñ sa boroom suñu boroom mu ne ah inna shirka la zulmun azim tooñ bi gën a màgg bu jëndi tooñ ci kaw suuf mooy bokkaale ak boroomam jalla waala loolu moom suñu boroom yàlla du ko baale tooñ bi ngay tooñ say moroom it suñu borom du ko baale yowmal qiyaama da nga koy fay ci say tuyaaba yonent bi alei salatu wasalaam nee na daañ indi kenn ci samay jaam ay julleem mat na ay koorom mat na ay la ko yàlla tegoon daal def na ko waaye nag lekk na alalu kii tuur deretu kii yàqu deru kii ñooñu mu tooñoon rang ñuy tibb ci tuyaaba yi di leen fay ba tuyaaba yi jeex ña des ñu tibb seeni bàkkaar di ko ko xëpp ba bu fa jógee safara la jëm yal na yàlla musal ñu ci loolu loolee kon di mbir moo xam ne dañ ci war bàyyi xel beneen bi mooy sox soxa borom xam-xam yi am nañ ci tuuti déggin am na ñoo xam ne dañ ne mooy nay ba nay ci farata yi ndax benn waay bi nga xam ne daa nay rek ci ku ko ñaan du la may kooku ko nay la mais nay ba ba ñu génne zakat nay ba ba ñu génne alal aji ji mag nay ba ba ñu def la nga xam ne farata la ñu ne loolu mooy suxa donte na am na ñu ne suxa mooy naye joxe li nga yor ba pare xemmem jël li nit ñi yor li nga noonu xemmem li nit ñi yor mooy koo jëkku boo mënee jël 1000 francs jël ko bu dee jëlee jël million jël ko mooy yow doo def lu baax ca lu nit ñi yor nga jàpp ne yàkka yeyoo loolu mooy suux yonent bi alayhi salaam nag ni lii moo alagoon ña nga xam ni moo leen jiitu woon yóbbu woon na leen ba mi ngi noonu boo demoon ci beneen xadis la koy wax yóbbu na leen ñuy tuurante seen deret daganal la yàlla aramaloon ci ñoom te loolu kon mbokk di mbir boo xam ne ni it sunu borom nee na wa man yuuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun suñu borom nee na képp ku yàlla musal ba nayoo yow moom ci ñuy texe nga bokk yàlla na yàlla boolo ñu ca mi ngi noonu yàlla na yàlla boolo ñu ca mooy mooy mu mucc ci la nga xam ne mooy ak nay yonent bi alayhi salaam la ci doon muslu allahuma inni auzu bika min al ham wal hazan wal ajis wal kasal wal jubni wal buxloo bokk na la yonent bi doon muslu yàlla na yàlla nag ma musal ci may nay mi ngi noonu loolu jàpp naa moom lañ jotoon a jël ci li ñu jàngoon mën nañ lay ba yegg d'accord
وعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء أخرجه أحمد بإسناد حسن وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان متفق عليه ولهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وإذا خاصم فجر وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر muttafaqun alayhi
kon mbokk yeneen xadis yi nga xam ne moo ci tege mooy xadisu non mooy xadisu Jaabir am Mahmoud naam xadisu Mahmoud ibn Labid radiyallahu anhu qaal qaal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna axwafa ma axaafu aleykum la gën a rag la ma gën a tiit ci li nga xam ne tiit naa ko ci yéen li ma gën a ragal ci li ma ragal ci yéen ashirkul asqar mooy bokkaale bu ndaw bi ca mooy arriya mooy la nga xam ne moom mooy ngistal mbokk julit lii nga xam ne moom mooy xadis bi yonent bi mu ne li mu gën a tiit mooy ngistal borom xam-xam yi gannaawam it moom lañ gënoon a tiit doomu aadama bi la nga xam ne mooy jëfi xol ci jëf yi gën a jafe la bokk lan mooy ngistal mooy li nga xam ne nii ak jaamu yàlla la da nga ko war a def te yàlla kese tax suñu borom mu ne ana aghna shurakaay ani shirk kuñ ma booleel rek maa ko gën a woom de amul benn jëf booy def di ko def ngir yàlla ak keneen lu dul yàlla bàyyil ak moom wala borom bi wax naan fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada ku yaakaar bu demee ci yàlla mu fay ko na jëf-jëf bu baax te bu mu bokkaale ak yàlla dara loolu moo tax rasul sallallahu alayhi wasallam di ci wax bokk na ñett ñi ñuy jëkk a tàbbal sawara borom xam-xam bu ñëpp xamoon suñu borom woo ko ne ko waaw yow day xamaloon naa la lu bëri ana lan nga ci jëfe mu ne ko yàlla day jàngoon naa xam-xam jàngale naa ko mu ne ko waaw loo ci jublu woon mu ne ko ngir sa diine ji tasaaroo nit ñi xam mu ne ko déedéet malaaka yi ne ko déedéet la nga namoon rek mooy nit ñëpp ñu ne tund yi day yaa fi sut waxoon nañ ko loolu mooy sa pay keneen ki alal la yoroon fu ne mu dugal fa alalam loo ci namoon mooy ngir yàlla xettali say jaam déedéet da ngaa bëggoon ñëpp ne yaay fi gën a tabe keneen ki jihaatoon ba dee fi sabilillah loo ci namoon mu ne ah ngir sa kaddu jëm kaw mu ne déedéet da ngaa bëggoon ñëpp ne jàmbaar nga loolu mooy sa pay loolee dañ leen di tàbbal sawara yal na yàlla musul ñu ci loolu moo tax ba suñu borom tagg ay jaamam yi nga xam ne mooy allazina yu'tuuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un suñu borom def ni mooy ñey def la ñuy def ba pare di tiit ndax xam nañ ci yàlla la ñuy jóge la ñuy jëm ndax yàlla nangul na leen am nangulu leen ndax mbokkoo yàlla pour mu nangu jëf ji ñaari charte da caa am fokk jëf ji dëppoog sunna fokk jëf ji sell ca yàlla tax aaya bi bi mu wàccee su ne Aysa daf ne yonent bi alayhi salaam ndax mooy njaalookat yi nekk ci xeet bi ak sàcc si nga xam ne dañuy def loolu ba pare di tiit mu ne ko déedéet mooy jullit bi nga xam ne dafa def jaamu yàlla ga ko yàlla sant waaye mi ngi tiit ndax yàlla nangu na ko am yàlla nangoo ca mbokk ngistal yemul ci def jëf ji ngir nit ñi waaye da ngay gis ne seytaane dana topp doomu aadama nga def benn mbir ci yàlla tax mu topp la ba nga dem di ko nettali ñeneen di ko nettali ñeneen ba mujj doon gis tal gis ngeen ndax li muy yàqale doomu aadama almuhim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon na xaritam ba abi abu bakar siddiq ñaan goo xam ne jullit bépp war na koy ñaan allahumma inni a'udhu bika an ushrika bi bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam yàlla yàlla nag ma musal ma lay bokkaaleeg lenn lu ma xam yàlla yàlla nag ma jéggal li nga xam ne xawma ko yaa ngi dégg loolu kon mbokk lu jafee mucc la mooy la nga xam ne mooy ngistal googee gannaaw ba it jaamu yàlla goo def del ñaan yàlla nangul la ko yàlla rek mooy as-samiul alim rabbana taqabbal minna innaka anta as-samiul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim loolee ñu bàyyi ci xel bu baax am maa sa xol bi it ngay xeex ak moom foo mën a toll ngallaawaay li ngay def def ko ci yàlla tax julli ya dem makka ya ah la nga xam ne mooy sarxe ya lépp loo xam ne yaa ngi koy def ci diine compareel ngërëmal yàlla ak ngërëmu keneen bu dee yàlla gërëm na la loolu wër na laa doy doomu aadama yépp buñ la bokkoon gërëm ci yàlla gërëmu la lu mu lay jëriñ dara doomu aadama yépp buñ la gërëmul ci yàlla gërëm la ndax loolu dina la wàññi dara dara looloo tax ba jullit da ngay ñaan yàlla boole xeex ak sa xol nag foo mën a toll ba jëf buy jëf nga mébét lii daal bi nga koy def yàlla subhanahu wa taala dong dong dong dong moo tax nga koy def boo delloo ci siira li ñuy tuddee salafu saalih da ngay gis ne bunt boobu ci bunt biñ gënoon a xeex ak seen bakkan ca la ca la bokk أما حديث بجتاب ما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث آية نافق لن يتلى إذا حدث إذا حدث كذب أربي وخ ما غينك دي فن وإذا وعد أخلف أربي ديك ما غي ووتك ديك با وإذا اؤتمن خان أربن كو وولو مو ورچ كوري تيغا mi ngi noonu muttafaqun alayhi mbokkoo lii dañuy gis ne hadis bi it ak neexoon Sénégal yépp xam ko ñu taf ko ci buntu atelier yi taf ko ci place yu bëree bëri ca mbokk naafiq mooy ki nga xam ne dafa nëbb kéeféer feeñal ak njub feeñal diine su dee loolu daa yëg ca pas-pas ba mooy naafiq boo xam ne moom bokkul ci diine xaali diine lay nekk safara yéeféer la mu des nag jug jullit boo xam ne moom du yéeféer waaye ci zahir mi ngi melokaanoo melokaanu nafiq bokk na ci loolu mooy di wax di fen imma sos wax wala yokk ay wax ñaar yépp fen la dana gën a garaaw nag bu dee ci wàllu diine la yonente bi alayhi salaam nee na képp ku ma fenal ca xam ne day fen na pare wàccuwaayam ca sawara ak bari sun jamono tey yonent yàlla nee na wala sëriñ su mag si fi nekkoon jàngale lislaam ak a bari tey luñ leen di dooral te ku am xel xam ni lii ay fen la mbokk loolu lu garaaw la waaye même bu diine passé it mbokk di wax di fen mandarga na fiq la bokk na ci li ñuy tuddee ay maye tey ji Sénégal boo doon lim personnalité yi bokk na ñi ci jiitu mooy mayekat yi am déet sëriñ seeg ñëpp leen di tudd waaye xoolal yonent bi alei salatu wasalaam li mu wax mu ne alkaa nga ñeel na waa ji ñoo di waxtaan ak ay nit di fen ca wax ya ñuy reetaan muy fen ngir reetaan loo reen rek kooku mel ni alkaa nga ñeel na ko ak neexoon mayekat yi nekk suñu rajo ak télévision yépp ñu jàngaloon leen xadis boobee ñaareelu mbir bi mooy mandarga naa fiq heure lu mu diggee wor wute ak dégg ba danaa la fay dana pare danaa fa ñëw dinaa la jox lu mu diggee rek da koy wute ca nagam tubaab bi moo naan la promesse est une dette waxuma yow nitug diine ala kulli xaal am neen lu ñuy nettali ne Ali ibn Abi Talib benn waay mas na ko wax ne ko ah yow amirul muminin day maa la bëgg yow loo diggee rek def ko mu ne ko déedéet du lu ma diggee def waaye lu ma diggee de fas yéene naa ko def am maa nag digge loo xamee ni nii da ngaa wëlbati ko war man nga koo def ba pare defoo ko loolu mandarga naa fiq la beneen bi mooy dañ laa wóolu waa ji mën na laa wóolu ci alalam lebal la ko dénk la ko waa ji mën na laa wóolu ci ak njabootam waa ji mën na laa wóolu ci ay waxam wax yoo xam ne dafa ñëw waxtaan ceeg yow mu jàpp ne lii ab secret la yow nga dem génne wax ji yóbbu ko feneen ci ñoo xam ne yeeyuñu ko lii lépp mbokk ay mandarga na fiq la yoo xamee ne nii xëy na dañ ko jàng waaye ñëw na ci beneen xadis rasul sallallahu alayhi wasallam ni ku ko dajale naa fiq la ku ca am benn am nga benn partie ci naa fiq ba ba nga koy bàyyi xadis bi ci topp mooy ba tey abi hurayra moo ko solo ba tey day wax ne wa iza xaasama fajar moom da caa dolli ne heure buy nekk di dàgg sante day génn topp mooy kum am pro kum amal problème ba ñuy dàgg sante ci kanamu àttekat bi dana sos sos yoo xam ne ku ko dégg ne kii moo nekk ci dëgg mi ngi noonu iza xaasama fajar ca loolu it mbokku jurit doomu aadama dafa war a xam ni képp ku muy jëflanteel lay dëgg rek la war a wax même bu dee dee condamné boppam wala way juróom wala ku mu mën a doon suñu borom mu ne walaw ala anfusikum awil walidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima maadaam yaa ngi dem bay atti di wax dëgg du di atte waxal dëgg ak dëgg nga fu mu mën a féete mi ngi noonu amma xadis bi ci topp mooy xadisu ibnu mas'ud radiyallahu anhu qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sibaabul muslim fusuq wa qitaaluhu kufru mu ne la nga xam ne nii day mooy saaga ab julit loolu ci ginnu topp la bokk mbokk julit du saaga donte ne sunu jeunesse ba xamuñu loolu ñun ba ñuy gone yu ndaw bokk na lu ñu daan jàngal boo déggee saaga sax da ngay faxas say nopp en suñu saali waaw da ngay faxas say nopp ci dégg gi rek nga dégg nga dégg mag mag ñi daan waxoon tuub naag dégg tuub tuub naa rek dégg gi ma ko dégg amaa nag sa gémmiñ nga génn ca saaga déedéet ndax lu tax mooy yàlla bëgg ko la yuhibbu llahu al-jahra bisu yàlla bëggul kuy wax lu ñaaw nga jàkkaarlu ak jullit nag saaga ko mu ne loolu fusuuq la te mooy ko fusuuq mooy koo xam ne nii amatul ak maandute mi ngi noonu yu bari kenn du ko ca wóoluuti wàllu seedeek wàllu nangam wàllu nangam mu ne jël jaas yi ngir xeex ak moom nag mu ne loolu ak kéeféer la donte ne kéeféer googee dana nekk ñaari kéeféer ñu fi de kufrun doonu kufr soo jàppee ne rey jullit lu dagan la su boobaa moom kéeféer la ndax weddi nga alquran amma nag soo jàppee ne daganul waaye mer moo la ci yóbbu it yaa ngi def lu nuroo ko kéeféer waaye du ñu wax yéeféer nga ci rey nga ko rey kese donte ne ne bokk na ci bakkaar yi gën a garaaw yu doomu aadama ji def ci kaw suuf bokk na ci rey nit fekk yaa ko tey ba lenn ci borom xam-xam yi sax dañ naan jullit bu rey jullit fekk moo ko tey kooku du ko mën a tuub donte ne am na ñoo xam ne dañ ne yàlla day bale bakkaar yëpp almuhim ci li gën a bon lu doomu aadama yi am ci kaw suuf ci la bokk loolu jàpp na mooy la nga xam ne nii jotoon nañ koo jël ci bind yi wees
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث متفق عليه وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يستدعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه متفق عليه
kon mbokk xadis yi ci topp bii bu ana abi hurayra radiallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن ما يجلن دميت لون جورت فإن الظن أكذب الحديث فإن الظن أكذب الحديث lii di njort day mooy la gën a nekk ay fen ca la nga xam ne mooy ay wax mbokk kon gis nañu ne jullit dafay war di bàyyi xel boppam bañ a doon ko woyof lépp lu mu jort rek daal di jàpp ne lu mën a nekk la suñu borom subhanahu wa taala da ngay gis ni daf ñoo tere lu mel noonu bal jullit dañ koo digal sax bu dee dégg na ay wax ci ay mbokk jullitam mu jortu ne le contraire la moom la borom bi dox naan lawla is sami'tumuhu zanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim xayra xayra bañ dureele yaay Aïcha yeneen ci bi alei salatu wasalaam daf ne suñu borom subhanahu wa taala daf ne du teewoon bi ko jullit ñi déggee ñu jortu ci seen bakkan gis nga waxul ci Aïcha de anfusihim ci seen bakkan xayra loolu mooy mbir bi amma nag masalan tey romb nga sa benn mbokk julit dugg na ci baar bi rafetal njorte na am na leneen lu mu fay def kër gi kat am na soxna su fay jaay boppam gis nga ko fa dugg rafetal njort ci loolu sa soxna dem na xëy na guddee na wala nangam rafetal njort ci loolu bañal nekk loo xam ne da nga yóbba sa bopp ba baa na ngay gis ay preuve yoo xam ne nii dafay dëgëral la nga xam ne danga koo jortoon waaye daal bu dee benn preuve amoo ko ay njort kese loolee wuroo caa teg benn atte boo xam ne da nga ko cay atte amma bu dee xadis bi ci topp mooy xadisu maaqal ibnu yasar radiallahu anhu qaal قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد أمل بن جام يسترئيه الله رأيه يلا سملوك أكتمو mooy lu ñuy sàmm yamuut yow ma yamuut mu dee ci bis bu muy dee wa huwa xaachun li raiyati fekk ma ngay doon di wor la nga xam ne ñoom la doon sàmm illa xarama allahu alayhi aljanna lu dul yàlla araamal ci moom aljana mbokk xadis bi yëpp lu ñuy jàngalee mooy ki yàlla jël responsabilité teg ko ci loxoom ku mel noonu daf leen war a sàmm ci yàlla tax yàlla ko teg muy seen kilifa dafa war a xool la leen di jëriñ mu jiite leen ca ñu ngi noonu la leen di lor mu moytuloo leen ko yonent yi yàlla doon yónni yépp noonu lañ meloon di leen digal lu baax di leen teru lu bon di daganal lu tey di araamal ci yéen lu xoroom loolu nag mbokk julit mi ngi commencé ci kër gi yàlla wërsëgal na la kër wërsëgal la njaboot bokk na wërsëg njaboot di leen seetaan ci lu neexul yàlla ñoom ñu jàpp ne ah lii kat bu baaxul woon bàyyi bàyyi danañu ko tere ñu nekk ci loolee ba baa ñuy daje ak seen borom yow bis boo dajeeg sa borom mbokk doo am lay yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na wa rajulun ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun fi ah fi ra'iyati mi ngi noonu képp koo xam ne nii da yàlla may na ko njaboot responsable la fa ci yàlla dafa koy laaj yowmal qiyaama noonu la yéegi yéeg ba ci responsabilité fu mu toll ba baa ñu yéegi nag ci président de la république ku mel noonu dafa war a laaj biir xeet bi bépp décision bu muy jël mu xool lan moo cay intérêt xeet bi bañ leen a wor di jël alali réew mi di ko dugal fu bokkul ak la ko réew mi fale woon loolee da ngay gis ne yonent bi alei salaam nee na ku deful lii nag ba dee ci loolu da ngay gis ne yàlla subhanahu wa taala dana araamal ci yow la nga xamee ne nii moom mooy aljanna donte ne bokk na ci waxtaan yi passé woon mooy bépp mbir boo dégg ñu ne ku def lii day dem sawara ku def lii day dem aljanna du tax nit def ko rek ñu ne sawara la jëm wala nit def ko rek ñu ne aljanna la jëm loolu moo tax ba atte bi am yowmal qiyaama ndax waa ji yàlla dana ko def lii dem àjjana ku def lii dem safara moom def na ñaar yëpp foo koy féetale suñ borom moo koy atte yowmal qiyaama loolu moom muy mbir bi amma bu dee xadis ba nga xamee ne nii moo ci topp mooy xadisu aisha radiallahu anha qaalat qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahuma naam waaw am boobu jàng nañ ko naam naam allahuma yonent bi alei salaam mu ne allahuma man waliya min amri ummati shay'a képp ko féetewoo ak lenn ci sama mbiru xeet bi dara fa shaq alayhim mu taral ci seen kaw fa fashquq alayhi ay yàlla yàlla na nga taral ci kawam loolu mbokk yi tamit dañuy gis ne sorewul ak xadis bi jëkk mi ngi noonu xadis bi jëkk moom kii daa wor xeet bi alxashi mooy def loo xam ne nit ñi xamuñu ko mi ngi noonu te ak a bëri ci yàlla nattoo tey ci ay président ay ministre ay directeur de service mooy fa nga nekk nga fay jalgati di jël loo xam ne réew mi yéegu ko wala direction wala service bi yéegu ko wala ministère bi yéegu ko loolu mooy ak wor am na xaalis bu ñaareel bi mooy da nga taral seen kaw boor boo xam ne dafa tëral ay loi taral ci kaw nit ñi loolee mën nañ ko tuddee des impôts mën nañ ko tuddee ay yokk prix yi ba nit ñi attanuñu ko mën nañ ko tuddee lu mu mën a doon ala kulli xaal heure boo jiitee ab peuple ba pare sonal leen lu toll ne la nga xam ne da nga koo sonal yàlla dana la ko sonal yawmal qiyaama mi ngi noonu ca loo leble loolu lañ lay fay amma bu dee xadis biñ mujj a jël mooy xadisu ba tey abi hurayra ba tey anhu an rajulan qaal ya rasulallah naam isa yonente bi alei salaam moo ne bokk qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ida qaatala ahadukum ngal la waay kenn ci yéen bu dee day xeex fal yeccani bil waj na moytu la nga xam ne mooy kanam te it mbokk suñu borom dafa teral kanam dafa teral kanam borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf ci yonent bi alayhi salaam la mu wax ca mooy inna allaha xalaqa aadama ala suurati yàlla daa bind aadama ci melokaanam ñu ne ndax melokaanu borom bi la am ñoo xam ne loolu lañ ko firi mooy suñu borom nee na am na ay bët am na ay bakkan non subhanallah am na ay nopp ca lam ñu wax ca borom bi day wax ñu wax loolu donte ne ne am na ñeneen dañ naan ci melokaanu aadama la ko yàlla bind fekk mi ngi am la nga xam ne moom mooy situna zira nekk à peu près trente mètres ala kulli xaal lu ci mën a am suñu borom dafa teral kanamu doomu aadama même bu dee ab yéeféer looloo tax doo dajeeg yéeféer ci jihaad jël jaasi caw ci kanamam mi ngi noonu dagg ba kanam fukk bëtam déedéet bal suñu borom mu ne fa darba riqa dóor leen ci loo si mu daanu loolu it mbokk jullit ndegam yéeféer la ñuy wax waxuma jullit waaw lu ngeen xam ci lii xew tey ci stade ba nag ah ñaari ponk lu cent cinquante nangam kilo jàkkaarloo ku ne di tëgg kurpeñ léeg-léeg bañ damm léeg-léeg kii damm ndax loolu jàpp ngeen lu dagan la ci lislaam abadan du lu dagan ci lislaam donte ne it war nañ ci bàyyi xel bokk na doomu aadama bu la merloo la gën a jëkku li nga koy def mooy pes bokk loolu déedéet nañ ko tàmm même njaboot gi bu dee dañ leen di yar utal yar boo xam ne bu deful naka sul noonu nga caw ko ca yar ba wala boo koy dóor nga xool feneen foo koy dóor mais kanam yonent bi alei salaam ne nañ ko moytu heure bu ñuy dóor mi ngi noonu kon incha allah ñu jël suñu bind yu mujj
وعنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا وقال لا تغضب أخرجه البخاري وعن عمرة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أخرجه البخاري وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا اخرجه مسلم
kon bokk ci suñu bind yu mujj yi xadis bi ki ko solo mooy abi hurayra ba tey anhu an rajulan qaal ya rasulallah awsini benn waay ñu ne ci yonent bi mu ne ko yum yàlla yooni dénk ma qaala la taxdab mu ne ko bul mer fa raddada miraaran mu répété ko ay yoon wa qaala la taxdab yonent bi ne ko bul mer mbokk xadis bi junjoon nañ ko ci kaw mooy yonent bi alei salaam saxaaba yi ku nekk dafa xamoon sa melokaan ku ne dafa xamoon sa melokaan loolu moo taxoon mu nekk ab sàmm kii yonent bi ci nature bi ko yàlla gisee ci nature bi mu gisee saxaaba bi xam ne ne ku gaaw a mer la te bu meree day def na ko sudul noonu moo tax mu ñëw ne yomu yàlla yooñu loo may dénk mu ne ko maa ngi lay dénk bul mer mu répété ko mu ne ko maa ngi lay dénk bul mer ca loolu it lañ ko waxee ca kaw mooy maa ngi lay dénk boo meree nga jéem a contrôler sa bopp ndax mbokk mer loolu yàlla ko bindi doomu aadama muy génn ci nit ki lay mbir mi kay mooy naka ngay mere loolu moo tax kon ku nekk ci ñu nit war a bàyyi xel ci loolu ndax mbokk mer dañ na noonu boroomam la mi ngi noonu am na benn tubaab bu ci bindoon benn livre sax tuddee ko les trois minutes du diable te mooy nit ñi bari ci seen mer lañ yàq seen àdduna doomu aadama dana mer xaru dana mer rey jabaram dana mer saaga ba way juróom dana mer yàq alal dana mer lu nekk loolu yi kon bul mer mooy del bàyyi xel boo meree nga xam ne yaa ngi ci beneen xaal nga jéem a contrôler sa bopp hadis bi ci topp mooy xawlata ibnu ansar an xawla al ansariya radiallahu anha qalat qala rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق dana am ay nit ñoo xam ne nii day dañuy nekk di xuus ci alali yàlla ji ci lu àndul ak dëgg fa lahumu naar yowma alqiyaama ñooñ day safara dana leen ñeel yowma alqiyaama mbokk xadis bii day daanaka dañ koy dund tey benn waaye ngi nii ñu namee ko ministre wala namee ko président wala namee ko lu mu mën a doon mu jël alal ji di ko jëfandikoo ca nam ko neexe loolu mbokk danger la bu garaaw ci danger yi doonte ne ne xatta alal ji nga xam ne yaa ko liggéey mu lew la dom islam du nangu nga nekk di xuus fu sa bànneexu bakkan nga def ko ca ay këri cinq cent millions këri un milliard jëndi oto ay cent nangam milliard million yàqate ca fekk ne say mbokk jege ñaale ñi ngi fi bu ñu añee duñu reer say dëkkandoo yu soriwul dara ñi ngi bu ñu añee duñu reer nga jël alali yàlla ji di fo num la neexe loole yonent bi alei salaam mu ne day jural nit ki safara ca alal ñaari question mi ngi ciy xaar doomu aadama bu nekk lépp lu yàlla teg sa loxo bii mi ngi lay xaar yowmal qiyaama foo ko jële mi ngi lay xaar yowmal qiyaama foo ko dépensé ñaar yi mi ngi xaar ku nekk amma xadis bi nga xam ne moo ci mujj mooy xadis abi zar radiallahu anhu qala nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal fi ma yarwihi an rabbi ci loo xam ne yeneen ci baa ngi koy nettali mu jóge ci suñu boroom qaala ya ibaadi mu ne ay yéen samay jaam inni xaramtu zulma ala nafsi dama aramal tooñ sama bakkan wa jaaltuhu baynakum muharrama def ko mu aram ci yéen fala tazaalamu ngallaway bu leen tooñante seen biir axrajahu muslim mbokk xadis boobu jàngoon nañ ko lu mel noonu ci kaw mooy yàlla moo araamal tooñ ba du tooñ kenn du tooñ kenn ci ëllëg mu bañ koo jox tuyaaba jam yeeyoo du tooñ kenn ci sosal ko bakkaar bu mu deful du tooñ kenn ci jaawile ay dossier ku nekk la nga fa fekk rek ngay am loolu it mu ne noonu la araamala tooñ ci suñu diggante bu ñu tooñante muy wañe ne yow boo tooñee sa moroom def nga ñaari tooñ tooñ nga ko moom ci boppam tooñ yàlla sa borom bi nga xam ne araamal na nga tooñ loolu yépp di ñaari tooñ yoo xam ne da nga koo boole mbokk mi ngi noonu ñi fekke woon njëlbeen bi xam nañ ne liñ doon jàng te yépp mooy moytu jukko yu bon yi kenn mënu caa mucc du dul ko ci yàlla musal yal na yàlla musal ñu ca yal nañu yàlla yeggale ci jukko yi gën a kawe jukko yam joxoon yeneen tam ba ki sahabaam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain day wax ne ay ki nga xam ne dafay ay déclaration yi mu waroon def ci wàllu ay TV ak yooyu da koo doon lu mu wàññi almuhim mbokk loolu dafay nekk lu complexe lu complexe yi mooy ñami déclaré ay TVA ndax loolee lu ñu saytu la seet ko mu tege ci yoon ci ne kii kat lii la war a def su boobaa loolee dafa war a tënku ca loolu su jàppee ne kat moom dañ koo teg loo xamee ne nii xëy na jàpp ne ne kat lii moom jéggi na dayoo ajustement yam cay def ngir tegg ak lorom loolee duñ ko ko tere ba nga xamee ni duñu wax rek ne dañu naan ku nekk am na droit def ko waaye loolu ay cas la yoo xam ne cas par cas mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam bismillah li lislaam wax ci borom xam-xam bu maanduwul mooy buur bu maanduwul jullit bu maanduwul ku maanduwul moom maanduwoo yaa ngi dégg ñàkk maandu moom maanduwoo doonte ne nag li gën a garaaw mooy borom xam-xam bu maanduwul ndax borom xam-xam mooy jàngale diine kon su ko defee moom bu maanduwul bu daanoo day daaneel ñu bëree bëree bëree bëri loolu di nekk musiba ñuy wax ne xasanul basri rahimahullah mas na fekk benn xale mu yéeg ci benn poto mu ne ko ah sama doom moytul fii boo fa daanu da ngay gaañu de mu ne ko garaawul su ma daanoo ci man la yem waaye imaam moytul boo daanoo da nga daaneel réew mi de ñu ne dafa fanaanee ji jooy keroog yaa ngi de kon ñàkk maandu moom baaxul ci kenn mais nag gën naa boo nete ci borom xam-xam bu ñuy déglu yal na yàlla musal ñi ci naam waaw ala kulli xaal bismillah naam aleykum salaam wa rahmatullah waaw waaw yeneen ci soxla tam lan moo ñu nekkoon daax ba dafa ñu def seen bàkkaar wala la fekkente yeen def seen bàkkaar def seen bàkkaar lan moo nekkoon bàkkaar beneen bi mooy koo xamante dafay laba jigéen tàggu ko ba xam islam rek dafa daganal ñuy jokkoo ci téléphone te tàggu ko ala kulli xaal li ko yàlla baal bakkaaram yi jiitu ak yu mujj bakkaar yi yonent bokkul ak bakkaaru ñi ci des Bakkaar yi nga xam ne mooy ay kabaa'ir yàlla musul na ci ay yonent waaye dafa am seeni façon bakkaar yàlla wax na ci lu bari ci téeram bu tedde bi masalan ñi ñëwoon di di ko tàggu si jihaad ku ñëw mu ne la boo waxee rek mu ne waa toogal suñu borom mu ne afa allahu anka li ma azinta lahum xatta yatabayyana lakum kaza wa kaza lu tax nga jóg rek ku ñëw nga ne ko toogal te gëstu ay mbiram keroog bi ñu xaree Badr mu jël ci prisonniers yi ay njot suñu borom dana ko lu tax ngeen koy def bu dul woon ak li yàlla tudd nangam nangam kon yu demee noonu la yonent yi di def waaye yonent boobu nag ca atum juróom benneel ba ca sulhu Hudaybiya la yàlla wàcc suratul Fath na ko yow loo mas a def ak loo nar a def lépp baal naa loo ko kooku rek la ko yàlla mas a defal ci jaami yàlla yi mooy sunu yonent Muhammad alayhi salaatu salaam loolu tax yowmal qiyaama ashafaatul kubra ba ñu dem Adama Nuux Ibrahim Moussa Isa Isa def nañ leen dem leen ci Muhammad moom rek moo mën a ñaan yàlla tey ndax moom kese la yàlla defal baal na ko lu mu masoon a def ak lu mu nar a def wallahu subhanahu wa taala alam naam ndax ki ngay labat man ngeen a jokkoo téléphone man ngeen a jokkoo téléphone bu yéemew ci jokkoo goo xamee ne nii da nga koy laaj la nga xamee ne nii xam ay jukkoom xam ay bëgg-bëggam ak yu demee noonu ba nga xamee ne bu ngeen di dugg di ngeen di dugg ci lu leer mu bañ a doon nag yoo xam ne nii dafay jéggi dayo lu jéggi dayo moom ku ne xam na ko wallahu subhanahu wa taala alam waaw yaakaar naa mbokk mën nañu do waaw ñu mujj ca mbokk bee rek bismillah waaw waaleykum salaam waaw ñu yor kaamil ah wala kulli xaal mooy li muy wax rek naan comme bëri bi xew léegi leen gis ñoo xam ne ñu ngi nekk ay sëriñ ay taalibe wër leen ba pare ñuy wax ci làmbe ji naan kii war a daane kii wurta daan kaza wa kaza ñooñu mbokk mooy ñi xamul ñi xamul rek ñooy indi ay pronostic wala di gërëm làmb ji mbokk làmb boo doon dajale musiba yi ci nekk mën nañ cee nekk di wax ba fajar ponkal yi ponkal yi doomu aadama ñu taxawal leen ñuy nekk di bàkku di fecc di def njabar goo xam ne nëbbuñu ko Sénégal jàpp naa ne li fi njabar kenn xamul mu toll mais làmb rek nga gis ñuy njabar ci kanamu nit ñi en direct ku nekk di def say xarfa fuufa ñu leen di tëggal ñuy fecc dóorantey kurpañ tuurantey deret buñ ca jógee depuis tisbaar fekk ne presque stade bi fees na xoolal doomu jullit yi daje foofu yaakaar naa pare bu ñu làmb ji am déet kon ngeen gis tisbaar takkusaan timis gay lu jege soixante mille à soixante dix mille jeunes doomu jullit nekk ci loolu yi loolu yi képp ku koy rafet ku koy rafetlu mooy da ngaa comprendre lii ci musibale yu ñuy drogué sunu jeunesse bi ñaari façon drogue am drogue dure ak drogue douce drogue douce bi bokk na ci sport ak musique yi musiba la yoo xam ne képp ko xam da nga war a ñaan yàlla ndaw ñi yeewu ci bépp ndaw bu yeewu ci diineem doo ko gis muy dugg ci loolu abadan yal na yàlla yee suñuy ndaw ci musal ñi seen fitna wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain